initiative bu baax parce que xam nga ñun moom amuñu ñu donc pour lii je pense que initiative bu baax la pour dooleel leen leen motiver pour ñu jëm ci kanam. Euh, ci Afrique euh, francophone bi euh, Sénégal lañ ci door a njëkk a jël mm-hmm. choisir ko pour mu organiser Afrima bi jàpp nga ni loolu dina permettre la culture sénégalaise mu mën a émerger un peu image am un partout dans le monde parce que lii nekkul ne Sénégalais rek ñoo koy c'est toute l'Afrique qui suit même les gens en dehors d'Afrique dañ koy alors ñu gis la nga nekk ci euh, international yi nekk ambassadrice di euh, Sénégal parce que mm. tu portes le drapeau du Sénégal un peu partout mm-hmm. euh, ngay génn ci àdduna bi di voyager un peu partout ngay gis ñoom ci seen culture ci seen musique dañ koy émerger mm-hmm. lan nga jàpp ne ñun moom lañ war a mën a def ñu nit pour aussi ñu mën a yegg ci yenn niveau yi um, man jàpp naa ne war nañ mën a ay plateforme yu baax yi nga xamante ne artiste bu su nekk boo génnee album wala nga génnee son Euh, say fans dañ ko mën a am like euh, facilement ba pare mooy de euh, plus facilement nga xamante ne dina la permettre aussi artiste bi si boppam mu gagné si fans yi enjoy li ngay def mais aussi en même temps artiste bi di mën a dund par rapport ak métier am quoi je pense que c'est très important bu ñu créé ay plateforme yi xamante ne dem di jënd seen son yi wala genre dina dina dina gagné gagnant so streaming jënd ay son yes streaming yi yenn streaming yi nga xamante ne yi nga xamante ne African music rek nga fay nga fay nga fay nga mën di dem si di stream parce que je pense aussi artistes yi ñu jaar a jàppale lañ parce que ñoom tam seen aar la ñuy donc ñun fan si def naa war nañ leen ñoo leen mën a jàppale pousser leen pour ñu jëm si kanam actuellement fan nga toll ci sa carrière. Euh, actuellement si sama carrière mën naa ne dinaa jouer euh, parce que ay business yu ma nekk but you know. on on stand by un non non pas stand by ça je dirais pas stand by je vais jouer je vais rejouer bientôt c'est parce que première saison bi dama jouer lool rek dama defoon benn y avait euh, quelques trucs yu ma naroon gérer mais bientôt je Euh, ñu gis ne bokk nga ci sunu ay célébrité yoo xamante ni sur le niveau digital des fois gars yi dañ mhm. ci sa solide et tout mhm. euh, lan ngay wax des fois fans yi nga xam ni ak soppe yi nga xam des fois dañuy gis des critiques peut-être amères mhm. boo xamante ni du leen neex envers toi euh, je dirais que il faire avec parce que les critiques ça vient avec nit ki noo mënta life dinañ la critiquer bi nga commencé bi nga juddoo lañ la commencé critiquer ba bi ngay dee dañ lay critiquer donc il faut apprendre à vivre avec euh, mentalement être fort et ne bañ critique yooyu di la affecter mentalement wala mu lay décourager wala mu lay freiner ci dara sa wala si liggéey bi nga nekk di def parce que critiquer aussi si si la bokk donc mentalement faut se préparer à ça donc ñi may critiquer et tout ça si lañ bokk peut-être que seen mentalité moo tollu foofu si la bokk. donc kon mentalement yow préparé nga ci loolu. bu yàgg parce que soo si préparé am na niveau yi nga xamante ne doo ko yegg parce que tu vas laisser les gens te freiner parce que euh, euh, euh, bi am peut-être amuñu ko te ñu fàtte ne aussi nit ki lu nekk nit ku nekk sa liggéey lu mu laaj moom ngay def parce que ñun sportif yi li ñuy gën a dégg yenn critiques yi mooy da nga góoree par rapport ak suñu compétence ñu sportif yu jigéen ñi comprendre xamuñu ne ñun suñu liggéey moo laaj loolu. te liggéey boo gis dafa am ay sacrifice donc da nga góode boobu sax day day pousser à certains ñu leen di taxer waa ñii euh, di bàyyi ñu leen di wax yenn yi que da ngeen bëgg jigéen jigéen bu bëgg jigéen et cetera parce que je veux pas prononcer le nom par respect à vous euh, nan dundee loolu ñu gis Yacine rek mu sol benn jean sol basket mm-hmm. après ñu ne moom bëggul góor au lieu jigéen la bëgg waaw loolu tax lépp loo gis rek niveau ak ña koy interprété ak sa niveau de mentalité nekk fu sa mentalité toll rek foofu la sa wala sa perception foofu lay toll ah am na ñi nga xamante ne euh, solo kese la solo ça définit pas ki góor la ki jigéen la you know so li rek critiquer moom il faut il faut s'y faire euh, être prêt mentalement te xam ne ne si la bokk nit ki dañuy wax rek ki nekk ci liñ naan ki nekk ci kanam nañuy klaxonné ku nekk ci ginnaaw kenn ko wax surtout jóobee di dañoo bëgg a lekk bu lekk ba sa jug klaxonné nangu nañ te xam ne ñëpp bëgg a lekk kan moo fi nekk jamono ji wala fan yi célibataire cent pour cent wala am na no comment. no comment ah, kon am na ko fi nekk di rien <laughs> consent loolu tubaab bi ñu lay ñaanal balaa 2023 bi jeex ñu dégg madame quelque amin incha allah merci merci. delloo ziar waaw. dama bi jaaxal ma. waaw est-ce que avant ñuy wax suuf gi sax mën nañ la bàyyi. Euh, maa ngi tudd Milkos El Hadj Malick mais Milkos lañ may lañ may waaye waaw. am na fa la euh, designer là on va dire c'est plus simple ouais, je suis est-ce que mën nañu xam daal yi fan la jugee c'est c'est un truc boo jëndee ailleurs indi wala c'est c'est made in c'est made in Africa. Euh, c'est made Sénégal. Déjà à la base, c'est made in Africa parce que c'est un, c'est un produit qui est designé au Sénégal, fait au Sénégal de A à par des Sénégalais, ouais. yow nga place. waaw man maay euh, fondateur ak designer du marque bu ñuy wax Niofar donc c'est la marque Niofar waaw. ñu fekk la ci Afrima bi déjà mu nekk une première à Dakar au Sénégal est-ce que mën nañu xam sa sa sa yëg Euh, pour man déjà genre événement yi nii c'est important parce que dina wone diversifi diversité culturelle bu nekk Sénégal dina tax artistes sénégalais yi ñu gën leen gis ci àdduna parce que euh, Afrima c'est une plateforme visible partout donc ça fait que que ce soit dans la mode dans la musique dans tous les arts réunis nit ñi dinañu mën a wone seen bopp pare mu dem fépp parce que voilà c'est c'est un événement international. mu mel ni yamul rek ci musique bi wane tamit euh, lépp luy laal culture daf ci bokk. waaw ah, parce que en fait soo nee musique ni culture parce que musique euh, regroupement culture la donc ce soit ci instrument yi ci yeneen affaire yëpp donc déjà Afrima day déjà day boole différentes cultures africaines c'est-à-dire so soo jëlee ñii di joge Nigéria ñii di jóge euh, Niger Côte d'Ivoire et tout donc déjà day créer benn mixité entre ñun culture différents pays et exactement donc day tax aussi faciliter collaboration entre artistes yoo xam ne dañuy am yeneen background parce que dañuy daje donc xam nga daje fu mu am waxtaan am waxtaan fu mu am après leneen mun na fa judd quoi exactement. Euh, on peut dire que ni après lii nii mën na amaat beneen suite cest à mën nañ ci jugee tey ki jaay dàll bi gis ci boppam à l'extérieur ak ki nga xamante ni moom moo di exactement parce que euh, encore une fois euh, culture en général dafa. def ba nga xam ne musique mooy li gën nekk phare ci culture mhm. donc a travers à travers musique bi lépp ay dajaloo parce que tey artiste bi su yéeg sur scène wala suy tourner clip wala su def leneen il faut mu am nu mu mel kan moo koy def designer bi kan moo koy def styliste bi mhm. euh, donc du coup kan mooy def clip bi ki def vidéo kan mooy euh, def son bi euh, tu vois donc c'est vraiment tout regroupement wu tout la mooy artiste bi dañ dañ koy gis mais li nekk ci ginnaawam moom loolu lay wone donc voilà c'est day vraiment ay ay opportunités pour domaine yo en fait ouais mais jaajëf jaajëf nag dinaa jaar nga jox ma ci non mais saa saa yu la neexee actuellement le buzz et tu peux parler wolof <laughs> bon on va alors on a vu ta participation sur le clip de Wally Ballago Seck Boy euh, comment ça s'est passé Bah, le réalisateur m'a appelé et puis ils ont dit qu'ils aimaient bien ce que je fais et tout ça. Et euh, voilà, quoi, j'ai donné ce que, ce que j'avais. Ouais. Et comment, ça, comment tu as trouvé le clip de Walisek et Parce que souvent, tu faisais des vidéos sur TikTok et sur les réseaux, mais euh, faire des clips, c'est un autre monde. Ouais, c'était autre chose, mais j'ai essayé d'adapter euh, euh, le rythme, tout ça. Et puis voilà, ça s'est bien passé, Alhamdulillah. D'accord. Comment tu trouves Afrique Bah, je le trouve très bien, c'est vraiment bien organisé et puis je pense que ça ira. D'accord. Euh, quelle impression que tu as sur Afrima Comment tu trouves l'organisation et les artistes euh, internationaux qui sont ici bah, je, le trouve, je les trouve très bien en tout cas. Donc euh, voilà, c'est. <laughs> j'ai pas, pas vraiment. Tu es timide là je ne pensais pas que tu étais Et, les jeunes filles qui te courent après, euh, depuis ton clip, comment ton clip, euh, tu étais très suivi TikTok, mais par la suite, euh, tes euh, vues, tes follows sont augmentés. <laughs> on essaie de gérer comme on peut, comme tout le monde, et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire qui te regardent En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, pour je remercie ma, ma famille qui me soutient toujours derrière, qui sont toujours là pour moi. Quoi. Et donc voilà quoi. Les Merci projets sont quoi bah, Pour l'instant, j'ai des études d'abord. Après, voilà, on, y va doucement, doucement. Quoi. Tu comptes te marier maintenant ou <laughs> tu n'as pas de copine là Dis-moi parce que <laughs> ah, y, a les filles euh, qui, demandent si tu es célibataire, tu vas te marier maintenant ou tu as plusieurs copines. Euh, <laughs> je ne peux pas répondre à cette question, mais voilà. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ici. Euh... Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a, a, personne. Allez, merci. <laughs>